xaale ñu ne war ñu waaye turba ay nett li raaja ma koo datum luñ jàppe la min takwiiril ximaamati ci lam gaala woowu moom lafuha mooy ak laxaaram wa jamxoa akuk war waaye tum nooni nett lig noon nga minal kaw ni mu ngi bàyyi ko ci al kawnu kaana yekkoonu masdaru kaana yekkoonu kaw nan isaa wujida ndem fekkeef na ko wasta xarra te mu sax Abdullah ibnu Sarjis moo ne yonente bi bu masaay tukki danaa ñaan yàlla musal ko ci tartari tukki ak wañar bi wañar bi bu naqari ak wàññi ko ci gannaawuk ko wala ñàkk ci gannaawuk am daal muslu tam ñaanu ku ñu tooñ maanaam tooñ ki moom lay ñaan yàlla ndax ndegam ku ñu tooñ bu ñaanam di su ko delloo faaw day dal dana muslu tooñ kenn ba kooku di ko ñaan ñaan gu aay daana muslu ba tey xool di gis dara lu ko naqari ci waa këram ba àllam ba dara lu aju ci moom mu gis ci biir wal xawri baadal kaw ni boo dee xool ci saxiixu muslim noonu la ko fa indee ak tirmidi ak an-nasaa'i ba tey àddina noonu wax wal xawri baadal kaw ni yi nee na nag daañu wax wal xawri baxdal kawri dindi noon nga ci kaw bañu wax baxdal kaw kawri su boobaa ñu firee ko ci yombal rek wal xawri ak ko wàññi ko baxdal kawri ci gannaaw dolli ko ne borom xam-xam ne nee nañu boo ne wal wëlbatiku safaan ba dal la muy jigadi mbir ak wàññi ko soo jàngee nag wal xawri baadal kawri a kaala ga soo nee kawri muy noonu nag mu bàyyi ko ci kaana bu ko tax sori jubub mbir ba noppi nag ak jubab di ca topp musal itam ci ak dolliku noppi ak wàññiku di ca topp maanaam daal musal na ci ak wàññiku ci gannaaw dolliku musal na ci jubati mbir ci gannaaw jubati mbir waxaan xali ibni rabiata qaala shahidtu teewoon naa xali ibna abi taalibin radiallahu anhu utiya ji dikkeef ko bi daabatin ci daaba li war kabaxa ngir mu war ko falam ma wadax ba mu tegee rijlahu tànkam ba fi rikaabi ci dëgal ba xaala mu ne bismillaahi maa ngi waane ci turu yàlla wala mastawa ba mu yemoo ala zahriha ci gannaawam nga xaala mu ne alhamdulillah sant ñal na yàlla sama xaal toog mu wax nag subhaanalladi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqaliboon sama xaal toog mu ne alhamdulillahi talaasa marraat ñetti yoon sama xaal toog mu waxaat allahu akbar talaata maraat ñetti yoon su waxal bopp mu ne subhanaka maa ngi lay saralal lépp léegi ci yow yàlla inni naka man dolantu tooñ nafsi sama bopp wax fi yàlla nga jéggal ma innahu naka la ngir moo di laa yaxfiru du junuba bakkaar ya anta ndara yow tumma waxi ko topp ne ko yaa amiral muminin yow bóoru jullit ñi min ay shay'in alamal mbir daxikta nga reexe lu tax nga reex daal xaaral mu ne raaytu gisoon naa annabiya yonante bi sallallahu alayhi wa sallam faxala mu def kama faxaltu nii ma defee tumma daxika toog mu ree faqultu ma ne ko yaa rasulallahi min ay shay'in ana ci man mbir daxikta nga reexe xaaral mu ne ma inna rabbaka naka sa borom yaa ajabu dana yéemu min abdihi ci ab jaamam ida qaala bu waxee def ci yàlla nga jégal lii ñeel ma jënee bi samay bakkaar yàlla mu fekk dana xam moom jàmbale annahu naka la mbir moo di laa yaxfiru du jégale ak jënee ba bakkaar ya xayri dana man xayri rawaahu abu daawud wa tirmidiyu wa qaala xadiisun xasan wa fi ba'di nusaxi xasanun saxiix wa haada lii nag lafzu abi daawuda mooy baatu abi daawud ku ñu wax ali ibn rabiha moo ne fekkee naa gis Ali ibn Abi Taalib ñu andil ko daaba ndax mu war ca dem tege ak tànkam ca dëgal ba nag da daal di wax bismillah ba waree ba njëkk daal di wax alhamdulillah teg ca subhaana alladi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun dellu waxaat alhamdulillah ñetti yoon tegaat ca allahu akbar ñetti yoon daal cee teg ne suñu borom maa ngi tudd sag sell man maa tooñ saa maa ngi sàkku nga jégal ma ndax yow rek yaa mën a jégalee bàkkaar daka mu wax lii daal di ree ñu ne ko waaw lu tax ngay ree mu ne man ci saa bopp maa gisoon yonente bi mu def nii ma defee yonente bi ci boppam daa waroon ba jekk wax li ma wax daal di ree ma laaj ko ne ko waaw yow ku baax ki la tax ree mu ne ma saa borom bu gisee ak jaamam mu di ko jégal naa ko saa borom jégal ma saay bàkkaar su borom da ci yéem magam jaam bu wóor na ko ne am na boromam boo xam ne buy jégalal rek yàlla day yéem jaam ba ca noonu mu na boromam boo xam ne moo mën a jégale te ku ko jégalu mu jégal la yonent bi loolaa ko taxoon na moo tax fa ma jaara nag moom ma jaar fa ak ñeen baabu takbiiril musaafiri li mooy buntu kàbbarug aji tukki ja isa saida dégg yéeg na ak njàng ba tey isa saada ak panaaya tundi doj ya sifa ak moom ñoom ba tasbiixihi akuk sabaalam isa habata ni wàcc na ak aw diyati ja xurya wa naxwa ha ak lu mel ne xurya wa naxi li mooy buntu tere anil mubaalaxati walis ak ëppal bi rafi sawti ci yëkkati kàddu ga bi takbiri ci kàbbar ga wala yi ak lu mel ne moom an jaabirin radiyallahu anhu qaala kunna nekkoon nanu ida saidna ndéem yéeg nanu kabbar naa nu wax laa kubar wa ida nasal naa ndéem nanu wàcc sabbax naa nu sabbaal rawaahu buxaari yu da wax ci dog bi yonent bi daan def bu dem bay yéeg aw tund loo xam doj la moo xam leneen la di wax laa kubar dana wàcc jëm ci alxur fu mbartalu maa fu suufe di wax subhanallah ñu bëgg nag ba ñu àggal kàddu ga lool lool boo wax allah kubar ja ci ba nga tund ak boo wax subhanallah ca ba wàcc yëpp nga yemale rek kàddu ga jaajëf nag moo ne dañ daan def buñ daan yéeg ay tund fu kawe daal di wax allah kubar buñ dee wàcc fu suufe di sàbbaar وحميد بن عمر رضي الله عنهما قال كان نكون النبي ورنتبي صلى الله عليه وآله وسلم وجيه شبه ak ay xareem ida xalaw tanaaya booy boole baat yi ida xalaw ndéem yéeg nañu booy teqale ak tanaaya tundi daje kabbaroo ñu kabbar wa ida xabatoo ndéem ña ngay wàcc sabbaxoo ñu sabbaal rawaahu abu daawuda bi isnaadin saxiix ibnu xomar moo ne yonent bi day masa ànd ak ay xareem yu àgg ci di yéeg fu tund fu kawe moo xam doj la moo xam feneen la dañuy wax allahu akbar di kabar yàlla di ko màggal buñ dee wàcc nag fu suufe na ngay xur baa fu mbartalu di wax subhanallah di tudd ak sellam wa an xujjale ci ibnu xomar ba tey xaala kaana nekkoon na annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ida xasala ndeem mi ngi ñibbi si minal xajji bàyyi koo ci aj awil xumrat wala umra kullama aw fa saa yu sappoo mooy saa yu tiimee xalaa tan yetin ci tund daj ay fadd fatin dinaa firib àll ay fi da ci jublu moom rek ay tund koy tuddee sax ci saraa bi tund yu tekkee kàbbara mu kàbbar salaatan ñetti yoon laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir aayiboona way dellu lanu taa'iboona te way tuub lanu aabidoona te way jaamu lanu saajidoona te way sujjoot lanu li rabbina ñeel sunu boroom xaamidoona te way sant ko sadaqa dëggal na allahu yàlla waadahoo dëxalam ba wa nasara te mu dimbale xabdahoo jaamam ba waaye sama te mu dàq al ahsaaba kuréelu yéefar ya waaye dafa moom rek muttafaqun alayhi wa fi riwaayatin li muslimin idaa xasala ndee mu ngi wàññi ko ñel jiwoo si bàyyi ko ca xare yu mag ya ayu saraya wala xare yu ndaw ya ayul xaj wala aj ga ayul xumrat wala xumra ga koy lu waxam ba aw saa sopp na mooy ay irtafan yëkkatiku na wa koy lu fad fadin wa huwa moom bi fathil faa ay ni na ci fataa ñaari faay baynahuma nekk na seen diggante daalun daal muhmalatun saakinatun wa axiruhu te mu jëm daalun daal la uxra geneen boobu moom al xaluubu moo di aji tal al murtafiu ji aji yëkkati ko minal ard ci suuf gata li waxoon ci lay dellu ibnu Omar ne yonante yi su ma saa bàyyi ko ci ak mbaa Omar dem ba yéeg ay tund rek mbaa yeneen rek sax boo ci yemoo wax allahu akbar ñetti yoon teg ca nag laa ilaha jooju ba ci xajirum ñu teg ca ne suñu boroom ñun day noo la tuubal di la roxlul di la jaamu di la sant sa jaam bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam da nga ko jógoon ci ndimbal def nga ko dàq yéefar dëgg la woon da koo sot ñëpp nga dàq leen ñu dana Omar ca net li bee dana woon su wàññi koo ci aj mbaa umra lay wax ñaan ngee am nag net li muslim andi mu ne moom du rek aj ak waaye bu bàyyi koo ci xare itam moo xam ci xare bu mag la moo xam bu ndaw la daana wax ñaan googu baat yi xawoon a jafe nag ay saa ca la bokkoon buy firee sopp mooy yëkkati ku tiim fadd fadd gannaaw booy waxee ni koy bindee mu ne moom ñu ko laa firee àll waaye la si fii moom barab bu tund ba noppi tettee wa abi hurayrata radiallahu anhu anna rajulan naka waaye xaala waxoon na ne yaa rasulallahi inni naka man uridu dama bëgg an usaafira ma tukki fa aw si nii dénk ma xaala mu ne ko xalayka dénk naa la di taqwallahi ci ragal yàlla wa takbiiri ak wax allah akbar ala kulli sharafin ci yépp tund falamma walla ba dëddoo ar rajulu waaja xaala mu wax ne allahumma aw buur bi yettaw yàlla nga taxañ la foo ñeel ko alboxda sorwaayu tukki ba waxawin ta nga woyofal xale yi ci moom ak safara tukki ba rawaahu tirmisi wa qaala xadisun xasan Abu Hurayra moo ne da am waa ji ne yonent bi man day damaa bëgg tukki dénk ma ne ko dénk naa la ragal yàlla ak boo tolloo ci aw tund wax allahu akbar ba waa ji dee dem nag ba woon gannaaw yonent bi ñaanal ko ne suñu boroom yàlla na ko taxañal solwaayu tukkeem bee mën naa doon taxañu dëgg-dëgg mën naa doon yàlla yombalal ko dem ba ba mel ne ak taxañ mu ne suñu boroom yàlla nga woyofal ci moom tukki bi dara bañ cee gis ci moom ba tey kon ñu dégg ci ne rek booy dem ba toll ci tund daañu sopp nga wax allahu akbar ndax bi mu ko dénkee ragal yàlla da caa teg ak boo tolloo ci tund wax allahu akbar waxan abi muusa al ashhari radiyallahu anhu qaala kunna nekkoon nanu ma annabi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si safarin ci ëpp ki fa kunna te nekkoon nanu ida ashrafna ndoom sapp nanu xalaa waadin ci aw xur xallal li wax laa ilaha illallah wa kabbarna te ñu wax allah akbar wartafaxat te yëkkatiku aswaatuna suñuy kàddu fa qaala ba wax alladi yëpp sallallahu alayhi wa sallam yaa ayyuha nnaas yéen nit ñi irbao def leen ndànk yonante leen xalaa am seen bopp fa innakum naka yéen laa taddoxoona gën ngeen di woo asam aji tax wala waayiban du caa aji fàddu innahu naka moom yàlla maxakum ànd naa ngi yéen innahu naka moom samiun aji dégg la qaribun te aji jege la muttafaqun alayhi irbaxoo bi fatxil baayi al muwaxadati ay infiqoo ñëwante leen bi anfusikum ci seen bopp Abu Muusa al Ashari yi moo ne dañoo ànd na yonante bi di tukki mu doon nag buñ àggee ci aw xur daal di wax ci kaw li kaw laa ilaha illallah ak allahu akbar yonent bi nag soo rek ngeen yemale seeni kàddu yërëm seen bopp ndax ku woo ku tëx mbaa ko fi nekkut mooy jar mu yëkkati kàddu mooy loolu di jël mbóoru ci kaw li kaw waaye yàlla mi ne di woo moom moo gën a jege seen buumu xol ndegam noonu nag ñëwante leen seen bopp wax rek wax bi yoon baabu istihbaabi duhaa yi lii mooy buntub sopp ñaan nga fi safari ci tukki an abi hurayrata radiallahu anhu qaala qaala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam talaasu daawaatin ñetti ñaan mustajabaatan yu ñuy lañu laa shakk amul benn sikki sàkk fi hinna ci ñoom mooy laa shakk fi istijaabati hinna daawatul magloomi ñaanuk ku ñu tooñ ba daawatul musaafiri ak ñaanuk aji tukki wa daawatul walidi ak ñaanu ko waajur xalaa walidi yi ca doomam ja rawaahu abu daawuda wa tirmidi wa qaala xadiisun xasan walaysa fi riwaayati abi daawuda der mi nekk ci ñetti abi daawud xalaa waladihi baatub te wax ni ñu soppe boo dee tukki ngay ñaan mu ne Abu Hurayra nee na yonent bi daa waxoon ne yetti ñaan yi yàlla du leen delloo faaw da leen di nangu njëkk bi mooy ku ñu tooñ bu ñaanalee musiba ko bu ñaanee musiba mu jëm ci ka ko tooñ rek yàlla nangu ñaan googa ñaaral bi kuy tukki tukki boo xam ne ayut kuy tukki tukki bu ayut bu ñaanee yàlla dana nangu ñaan nga ñetteel bi nag mooy waajur bu ko doom ja tooñee mbaa mu ñàkk koo déggal ba waajur wa ñaanal ko musiba adduhaawu xalaa te ku teg adduhaawu lii xaqul waajur yi bu ñaanalee doomam musiba fekk doom jaa ko tooñ ba xolam tàng mbaa de ko defal lu ko war a defal bu ko ñaanalee musiba faaw mu dal doom ja moo tax ñu naa waajur muy gaawantu di ñaanal doom musiba ndax mën na koo ñaanal ñaan ka dal boobu di ko di rëccu fekk rëccu yees ne nag ñetti Abu Daawuda ci xalaa wala di den rek wada waajur moom bu ñaanalee doom ja moo xam aw yiw la moo xam safaan ba la faaw rek ñaan nga dal waaye nag bu dee safaan ba moom dañ cee sart fekk doom ci def lu ko jaax waaye yàlla daa maandu bu fekkee waajur waa tàng xol rek di ñaan di ji ñaan gu ay rek waaye doom ji deful dara moom du tax nag yàlla yàlla dafa maandu du tooñ du nangu googu ñaan baabu maa lii mooy buntu la nga xam ne yàlla xoo dana ko ñaan ida xaafa ndem ragal na naasan ay nit aw gayrahum wala ñu dul ñoom an abi musa al ashari radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kaana nekkoon na ida xaafa bu ragalee xawman aw nit xaala mu wax ne allahumma yow buur bi inna naka nun najxaluka dana nu la def fi nuxóorihim ci seeni pëttax wa naxoo bu te ne muslim bu ci yow min shururihim ci seen rawaahu abu daawud wa nasaa'iyu bi isnaadin saxiix ni abu muusa ne yonante bi bu ma saa aw nit ñoo xam ne wóoluwut aw ay bàyyi ko ci moom jëm ci moom day wax ñaan gi allahumma inna najxaluka fi nuxuurihim wa naxoobu bika min shururihim maa ngi lay jël teg la ci kanam gaa yee nga dox sama diggante ak ñoom musal ma ci seenu ay yow laa jël teg la sama diggante ak ñoom buñ nga mënal dara musal ma ci seenu ay mënees na ko wax kon ci boo séenee ay nit ñoo ragal muy kenn ba muy mbooloo sax kon ak boo séenee leneen rek loo ragal wax ñaan googu baabu maa lii mooy buntu li nga xam ne yàqool dana ko wax ida nazala nde wàcc na man si lan ci wàccukaay an xawlata binti xakimin radiallahu anha qaalat sami'tu déggoon naa rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu man nasala ku wàcc man si leen ca wàccukaay suma xaal toog mu wax ahodu danaa muslu bi kalimaatillahi ci baati yàlla yi attaam maati yi day mat min sharri ma ci ayu lépp loo xam ne xalaqa bind na ko moom yàlla lam yadurrahu du ko lor shay'un dara xataa yara taxila ba ba muy laxas maanaam ba ba muy bàyyi ko ba muy dem min man si ko ci wàccukaayam la bu gàtt koo xam ne barab ba ko waxee ba nga la fa mën ne xawlat buntu xakim moo ne mu dem yonante wàccee ci ab barab bu mën di doon moo xam yaa ngi tukki moo xam ne ku tukki daal di wax a'udhu bi min sharri ma xalaq barab boobee dara la fa lor ba da nga fay bàyyi ko waxaan ibni omara radiyallahu anhuma qaala kaana nekkoon na rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ida saafara ndéem mu ngi tukki fa aqbalati dégg mën a si allaylu guddi ga mu ne yaa arabu yow suuf rabbi sama boroom wa rabbuki tey sa boroom allahu mooy yàlla aawdu danaa muslim billahi ci yàlla min sharri ci saw ay wa sharri ma ak ay lépp loo xam ne na ci yow wa sharri ma ak ay lépp loo xam ne xuliqa bindeef na xam ne yadibbu dana jukkat xale ki ci sa kaw aawdu danaa muslim billahi ci yàlla min sharri asadin ayu gaynde wa aswadin daañu ko firee jaan ju mag a mag su boobaa la ko wóotalee moom nal xayati mooy dafa rëy te ràññi ci lor te na a ëpp lor ndax ñu ràññeel ko daañu ko firee tey wa aswadin ak jëmm daañu ko bañ a tamit doom jàng wa aswa da bañ a jàng wa aswa din wa minal xayati ak ci jaan wal xaqra bi ak jiit wa min saakinil baladi ak ci aji dëkke barab bii albalad danaa firi ab dëkk fu doomu aadama dëkk waaye dana leeral ne albalad barab rek la foofu wa min jur nga xamee ne wala da jur na ko rawaahu abu daawud wal aswadu ash-shakhs mooy jëm qaala alxattaabiyu wa saakinul baladi hum ñoom al jinnu mooy jinne alladina ña nga xam ne hum ñoom sukkaanul ardi ñooy way dëkkee suuf sa xaala ne wal baladu min ardi ci suuf maa mooy la nga xamee ne kaana nekk na ma wala xayawaan yi di tàppkaayu dundut wa in lam yakun ak doonte nekkul si ci moom binaawun tabax wa manasilu ak ay kër xaala nee na wa yax tamil dana jamtalu wa yax tamilu ànnal muraada naka lañ namm bil waalidi ci alwaalid iblis mooy iblis booba ak la nga xame ne wala da jur na ko ashayaatinu te moo di seytaane ya ibnu xamar moo ne yonante bi bu ma saa nekk ci tukki ba guddi gi tàmbali ci di ñaan day ñaan waxanteeg suuf si ne yow suuf si maa ngi noo bokk boroom te mooy yàlla kon maa ngi ñaan yàlla nga xam ne moonu boole moom bu musal ma ci saw ay musal ma ci ayu lépp lu nekk ci sa biir musal ma ci ayu lépp lu sàkk mu nekk ci sa biir ak ayu lépp luy dikkat ci sa kaw maa ngi ñaan yàlla mu musal ma ci ayu gaynde ak ayu xeeti jaan yépp rawante na jaan yi ëpp lor ak ayu jëpp jëmm ju am ak ayu jiit ak ayu jinne yi nga xam ñoo nekk ci barab bii ak ayu iblis ak lépp lu soqi ko ci iblis am nañu ne itam wa min walidin wa ma naa matale ayu lépp luy jur ak ayu lu soqi ko ci moom mu jur ko li mu firi baat yi ne al aswadu ci boobu am nañu ne as sax su jëm lañ ci jublu waaye daañu ko firi ba tey nag ñu ko waxoon léegi jaan ji mag a mag ko ci lor alxataa bi ne saakinul baladi daañ ci boole waaw itam wala bu dee barab bu jar ñu ne saakinil baladi boole ci yaa mu jàmm mu sakkar bi ko waxee mooy jinne yi dëkk ca barab boobee al baladu yooyu ci ab dëkk bu am dëkkuwaay doomi aadama day jublu rek bépp barab boo xam ne borom bu roo nekk na fa moom alxataa nag moo ne alwaalidu jooju xëy nañ jublu ci saytaane boomaa wala dañ jublu ci lépp lu soxikoo ci saytaane muy xeet saytaane yu bari yi ba guddi jot daana wax ñaan googu ba seetloo ñaan yi nga jot a dégg ci bi tàmbalee léegi sëñ bi dana koy ñaane lu bare bare rawante ne ci njëlbeenu matt la buñ faw sëy bi lu mel nii ñëw na fa ba tey boo dee jàng zaadul musaafiri waqootul xaadiri ñaan ya nga wees woon ci tukki yu ci bari ñëw na ca tudde ko zaadul musaafiri yóbbalub aji tukki waqootul xaade tey dundub aji teew maanaam dundub ku tukkiwut tey ñaar nag yu wuute waaye soriwut ay ñaar ñoom ñaari mbindi yooyu baabus tix baabi taajilil musaafiri yooyu mooy buntub sopp gaawek aji tukki ja arru jooxa dellu ga ilaa ahlihi jëm ci ñañam bi waa këram ita qada dem faj na xaajataxoo aajoom an abi hurayrata radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala asafaru tukki qitxatun kenn ab dog la minal xadaabi ci mbugal yam naa day tere ahada kum kenn ci yéen taxaamaxoo ñamam wax wa sharaabaxoo afu naanam wa nawmaxoo ak nelawam fa ida qadaa ndeem faj na ahadu kum kenn ci yéen naxmataxoo aajoom wala ak nammeelam min safari yi ci ab tukkeem fal fal yu xajil na daal di dellu ga ilaa ahlihi jëm ci ñoñam muttafaqun alayhi nahmadahu nag mooy maqsudahu la mu nam dañuy sopp boo dee tukki ba nga taxoon jóg bu sottee nga daal gaaw ñibbi mu ne Abu Hurayra bi daa waxoon ne tukki daal mel ne ab aw dog it mu yàlla dogee ci mbugal teg ko ci kaw kii tukki maanaam tukki daal xeetu mbugal la ndax kuy tukki li ci ëpp du mën a lekke na mu lekke du mën a naane na mu naane du mën a nelaw na mu bëgg a naa am sax na mu bëgg a jaamu yàlla duna mën a jaamu yàlla noona ne kon nag ku ci génn di tukki bu soxlaam fajoo rek daal di gaaw ñibbi delluwaat baabu istihbaabil qudoomi li mooy buntu sopp ñibbi si xalaa ahli ci yoonam naxaaral ci bëccëg wa karaahati yi afuk sibam fi layli ci guddi li xëyri xaajat ñeen lu dul aajo xan jaabirin radiallahu anhu anna rasulallahi naka yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam qaala ida ataala ndem yàggal na ahadukum kenn ci yéen alxaybata tukki ba fala yatruqanna bu mu rañaan ahlahu ñoñom laylan ci guddi wa fi riwayatin anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naha tere woon na an yatruqa bu rañaanee rajulu waa ji ahlahu ñoñom day leen ci guddi muttafaqun alayhi wa an anasin radiyallahu anhu qaala kaana nekkoon na rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laa yatruqu du rañaan ahlahu ñoñom day leen ci guddi wa kaana nekkoon na ya'tihim di leen dikkal gudootan ci suba aw xasiyat wala ci ngoon muttafaqun alayhi ab toroxu baatu ab toroxu nag al maji u mooy dikk nga fi lay li ci guddi day wax ci dog bii ne sopp nañ boo tukkee bay si te yàgg nga ci tukki ba te sa waa kër xamuñu waxtu way ñëw nga ñëw ci bëccëg damay ñëw ci guddi ñëw ci guddi daal su fekkee mën naa ñàkk moom moytu ko ñëw ci guddi daal moom ndax day fekk ndegam yëguñu ne yaa ñëw te ba nga demee léegi yàgg na buñ waaj man laa teeru naam nga ñëw fekk leen ci noo xam ne da nga leen bett te nga ñaaw njort ne ni nga leen bett rek ñu nga fi jógee ba noonu ñu meloon noonu ñu bu dee nag moom ñëw ko ci guddi gi daa mënta ñàkk ndiki da ngaa wérén ci bëgg ngaa wax si faju mbaa daal ngànte ko waral moom dara nekku ci bu fekkee ne itam tukki bi yekkut mbaa xamoon nañu waxtu ngay ñëw ñëw ci guddi ga du aay mu njëkk at yi si jaabir mu ne te bi dane woon kenn ci yéen bu tukkee tukki bu yàgg-yàgg moom jekki-jekki ne jaseet ci guddi gi rek ñuy bisi ci lu bettee bette fekk yëguñu woon ne mi ngi ñëw di ñëw ci ab bëccëg baa bu dee guddi fekk ñu yëgoon ko am bi dafa aaye woon nit ki di ñibbisi di rañaan bàyyi ba guddi bu ñëw di ñibbisi ci waa këram ne ñëw rekk ci bëccëg anas ne yonent bi day su masaa di tukki daaw nangoo ñibbisi ci guddi faaw rek day ñëw ci suba mbaa ci ngoon waxtu leer daal la ñëw baabu maa lii mooy buntu la nga xam ne yàqool dana ko wax isa rajaxa ndéem ma ngay dellu wa isa raa ak ndéem seen balda taxoo takkam ba fii nag na ci moom xadiisu bni omara as saadiqu bay aji jiitu fii baabi takk biiril musaafiri ci buntu kàbbaruk aji tukki ja isa sax i dande mi yëg asanaayaa tuni ba jeex waxan anasin radiallahu anhu qaala aqbal naa dëgmal woon nag maha nabi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xata ida kon naa ba nekkee bi zahril madinati ci fu mën a séeni madina bi zahril madina nee na mooy ay bi mahallin tazharu fiihi wa hiya madinatu rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xaala mu wax ne aayiboona way dali lanu taayiboona te way tuub lanu aabidoona te way jaamu lanu li rabbinaa ñëw suñu borom xaamidoon na way sant ko falam yasal dëwutoon yaqul wax daalika loolee xataa xadim na ba ñu dikkal ak rawaahu muslim ñaan yu ñu wax boo tukkee da wàññi ko mais mën nga cee jiital hadiis ibnu omar ba wees woon te tàmbale woon kaana nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ida xafala min alxajji aw alxumrati muy hadiis boobee mën nga koo delloo si fii door cee teg nag